père Palla bi nga toogal di am mbégte tey di teew fii ci drapeau chef de l'état xam te ni yaakaar naa drapeau bu am solo la ndax bu ñu drapeau chef de rek euh, yaakaar naa histoire la te drapeau chef de l'état ndaanaan rek moo koy jël muy drapeau bu am solo tey CNG invité ñu ñu ñëw fii en tant que promoteur soutenir CNG pour accompagner ko ci li nga xam ne mooy drapeau chef de bi. foo tollu ci waajtaayu le 19 bi. waaw non le 19 mais incha allah pare nañ ci lépp luñ ci war a def def nañ ko. instant yi li ñuy xaar la mooy le source yi te su bu neexee yàlla dinañ gis innovation yu am solo ci stade euh, arène nationale bi ndax vraiment ñu ngi fay waaj loo xamante nii amateurs yi dañ kontaan fans club yi nañ kontaan sénégale yi surtout ñi nga xam ne ni ñooy amateurs yi dinañ kontaan diaspora bi tamit dinañ kontaan ndax gars yi nañ waajal ay surprise yu am solo ci biir stade bi ndax nag euh, Ndiaye production moo xew xewle te li ñu gëm gëm toujours rek mooy euh, phénomène yi génn mooy espoir yi suuxal leen ba nga xam ne ñoo war a tey remplacer mag yi boo xoolee tey Siteu Ngor Boy Diop combat la boo xam te ni incha allahu rabbi bientôt bu àggee ci saab bi dimanche dinañ gis ne grande affiche yi ñuy wax yóbbu luñ ko dara te incha nañ ci liggéey liggéey boo xam te ni li ñuy gis ci grande affiche rek bu neexee yàlla moom la ñuy gis foofu en dinañ gis lamb et puis nañ kontaan ndax lamb bu a la. dégg naa pay per la Sénégal waaw no pay-per-view la Sénégal ak diaspora bi yëpp tey bu dee Sénégal da nga jënd code pour seetaan bu dee diaspora bi da nga jënd code pour seetaan ndax 100 pour cent pay-per-view la kon ñu ngi wax sénégalais yi ñu teel dem comprendre xool plateforme seen affiche bi xool na lañ mën a def pour mën a teel a jënd seen ay code diaspora bi tamit ñu leen di lancer appel ñu teel a jënd seen ay code pour accompagner ñu pour jàppale ñu ñu liggéey ci liggéey bi incha allahu rabbi ndax làmb fi mu toll nii moom loolu rek moo ci am solo diaspora bi di ci gis boppam sénégalais di ci seen bopp ñu xam ne sponsor yi amatul léegi wala bareetul tey pay-per-view moo mën a jàppale promoteurs yi kon il faut gën koo fulaal gën koo dooleel ba nga xam ne nii a euh, li mu wax dëgg la kii dafa war a jàppale dañ ko war a jàppale parce que gis nga combat bi mu tëgg du combat xale combat jànq dëgg la mooy ñaari espoir yi nga xamante ni ñoo ëpp ay supporters ci réew mi mooy ñaari espoir yi nga xamante ni biñ leen di boole lu ne daj nañ ko pour combat bi am lu mel noonu nag su ko taxawalee sponsor yi war nañu ko wuy non seulement waaye bu ko defee perpétuité ñëpp war nañ ci mën a ànd ndax xale la boo xamante ne mi ngi dundal làmb te alalam da koy investir ci ndaw yi daanaka production làmb lu bari mi ngi koy def moom Fallou Ndiaye bi macha allah am na solo kon Fallou. waaw comme ni ko père Palla waxee rek. en tout ah. cas incha allah dimanche la ñuy wax rek. le 19. gis vraiment ay sat bu taaru dinañ gis làmb ju neex. incha allah billet yombal nañ ko 3000 la ak 5000. fële ci arène di jox amateur jar na ko wax ne waaw incha allahu rabi arbitre sifle na final baa ngi noonu diggante Dakar ak Fatick Cheikh Sadibou Sarr moo féete càmmoñ ceinture bleue moom la ak yaa Mohamed Ndong Dakar ñaari mbër ña nga ca Dakar mooy bleu yi Dakar ak Fatick eh kal na ko mu moy de Cheikh Sadibou Sarr eh yaa Mohamed Ndong li nga def mbaa wóor na Cheikh bu daw jël ko mu faqat ko Cheikh Sadibou Sarr ña nga ca saako ya arbitre mais kan moo ci Dakar bu rouge la wala bleu. Dakar mooy Dakar mooy ceinture rouge. Dakar rouge. Dakar Fatick. Cheikh Sadibou Sarr. yaa Mohamed Ndong ñu naan ko yaamu Dakar. moo féete deux jours moom moo doon représenté Dakar. di nuyu les fidèles internautes de Lutte TV fu ay mën a si àdduna bi ñëw leen nuyu bu baax a baax di la ziare. waaw waaw rawatina les sénégalais de la diaspora ayca yaamu Sarr. ñu nan ko yaamu Dakar ginnaaw raay la dëkk moo féete ndeyjoor yaamu Dakar moo ngem boo ngem bleu bi bleu bic moom la ak Cheikh Sadibou Sarr Sadibou Sarr a ngi koy pousse ah jël ko mu may jël na ko Cheikh Sadibou Sarr yaamu Dakar waaw boo seen le côté expérience nag yaamu Dakar moo ko ëpp expérience tey si wàllu lutte bii nii ñuy bëre nga xam ne trois appui jël te aussi amul jàpp ngemb xam nga bëre a ah, jël na ko de ma ngi koy fàq ma ngi koy fàq ma koy wëndeel mi ngi ah ma fàqalaat na ko bañ na fàqat na ko mu moy waaw on est assisté al amin à un boo xamante ni day day am stress. waaw combat day am pression parce que. combat bi mooy déterminé mooy mooy may yeneen yi moral moo leen di may confiance. nekkul combat bu yomb. effectivement Boucar c'est la c'est la c'est la premier combat de la finale ñoom ñaari mbër yi loxo ñoom ñaari mbër yi loxo la ñuy bëree loxo. waaw premier combat de la finale entre Dakar et Fatick. waaw pour cette vingt quatrième édition du drapeau du chef de l'État. waaw ici Caroline Faye de Mbour. entre donc euh, Dakar et ces deux régions qui se sont hissées sur le toit de la lutte simple. de cette vingt quatrième édition. ñaari bëri yàgg na temps bi dafa gàtt TNT bi yàgg na. ñoom ñaar ñëpp ñu ngi wut ay pexe. ñoom ñaar ñu ngi wut ay ngi wuti pexe ñoom ñaar. Cheikh Sadibou ak ki nga xamante ne moom mooy. Ah. yaa Mohamed Ndong ñaan ko yaa na ko ah daje nañ ca kaw. daje nañ ca kaw. door na ko daje nañ ca kaw. arbitre baa ngi wax ak ñoom. arbitre baa ngi wax ak ñoom. Cheikh Sadibou Sarr yaa Mohamed Ndong ndaw ndaw lu metti te rëy loolu mooy première finale bi. di nuyu ñu ñuy suivre sur Eric Favre TV. di ñuy ñu ñu suivre sur Lutte TV fu waaye mën a nekk si àdduna bi ñëw lay nuyu bu baax a baax a baax di la ziare di la ñaanal jàmm. ñoom ñaar ñëpp jël nañ avertissement. di ko sàkku ci yow. waaw ah, c'est normal y a l'enjeu qui est ah. énorme. na ko. Cheikh Sadibou Sarr jël na ko dina ko daan. trois bi war na ko ndombo dina ko daan wala. Cheikh eh. Sadibou Sarr rëpp na arbitre arrêté na. de lu xew. lu xew. <laughs> victoire wala lan lu xew arbitre. victoire la ah, ah, ah, victoire pour la région de Fatick. pour la région de Fatick mais mais mais. victoire pour la région de Fatick. est-ce am na. victoire pour la région de Fatick pour la région de Fatick Boucar. mais Fallou Ndiaye ñoo gisee xale yi Fallou. waaw non bëre bi neex na am na solo trop te yaakaar naa li li ñu ci gën a neex sax mooy xale yi fen di sànq. waaw ñuy bëre boo xoolee mais est-ce que combat bi du am recours. waaw xalaat naa ye mënu cee ñàkk nag ndax vraiment. ah mais nañ xool rek ba xam. <laughs> waaw gars yi daal daal bi gars yi suivre ko ñu xool ko ba xam lan lañ ciy gis. dëgg la mais pour leen rek Boucar. waaw ñu ngi jox ñëpp rendez-vous dimanche. waaw fële ci arène nationale. waaw diggante Boy Diop Siteu bu Ngor. ak ki nga xam ne mooy Hercule ak ki nga xam ne mooy Ama Yaraax. waaw fils de ak ki nga xam ne mooy. trompeur ak ki nga xam ne mooy Dame Junior. ak yeneen combat yi ci a neex nga def. muy combat yoo xam ne nii combat neex la ñu war ak fële ci arène di wax ne kontaan nañ bëgg nañ di ànd ak Yandé di nuyu Yandé Diop mi ñu àndal suñu grand suñu bayit ku mel ni Matar Ndiaye ñu ànd jógee Dakar ñëw tey fii pour suivre ci li nga xam ne mooy drapeau chef mais am nañ ci te kontaan nañ gis nañ vraiment public bu Mbour bi ni ñu génnee pour soutenir li nga xam ne mooy CNG de lutte te loolu yaakaar naa mbégte la ndax tey buñ ko defoon kenn ñëwuf rek lay metti mais tey stade bi fees dell lii kontaante la ak mbégte mu am am solo léegi wax ne daal kontaan nañ baax daal gars ayca am na solo na solo dañuy jàll ci li nga xamante ne nii moom mooy deuxième combat bi waaw. C'est quoi le problème? Ah, je monte, je descends, c'est quoi? Je monte, je monte Saliou Sarr Fatick directeur de la deuxième soirée. ayca deuxième combat baa ngi noonu diggante ki nga xamante ne nii moom mooy. Mbaye de Dakar la. ayca deuxième combat baa noonu. diggante dakaar ak fi nga xamante ni moom mooy Fatick Dakar Fatick Langbar ak fi nga xamante ni moom mooy Mbaye Diop Palmarin deuxième combat baa ngi noonu ay ca Mbaye Diop ak Langbar ak ñoom ñaar nag yàgg nañ daje xamante nañu bu baax a baax a baax. ça veut dire que waaw ñoom ñaar xamante nañ bu baax yàgg nañu daje diggante mbay Diop ak ki nga xamante ne nii moom mooy Langbar arbitre baa ngi wax ñoom nee na leen amul tegante bopp. ñaari mbër yi ñu ngi ca Mbaye Diop Palmarin moo féete ndeyjoor moo doon représenté la région de Dakar catégorie 76 kilos ak ki nga xamante ni moom moo di Langbar qui nous vient de Kado Al Amin aca Al <laughs> moom c'est un habitué du chef de l'État effectivement il a été champion euh, a été champion oui euh, deux ans ci ginnaaw à pour la région de Dakar encore Alors, qu'est-ce qui se passe On que c'est Fatih qui mène 1 à 0. Ah oui, quand Donc, ah. lors de la Fatigue première confrontation. Fatigue 1-0 pour le moment. Effectivement. war nañ dem suspense nag mooy tax mu neex. 2-2 laa bëggoon nag mu des ci mag ay ca ñaari mbër ya ca. jàppante ci kaw mais ñaari bu final nag gars yi ñu bëri beaucoup de prudence. Mbaye Diop. Mbaye Diop dëbb ndoxal ko mi koy bal ñaari loxo. attention deuxième avertissement pour le lutteur Fatick. Mbaye ak Lang Baar. dina ko. mu mel ni Mbaye Diop rek mooy bëri Lang Baar bëriwul. dañuy bëriwaat ci digg géew bi ah, ah oui ay ca ñaari mbër yaa nga ca. Dakar pour se relancer doit gagner ce combat. normalement. pour à égalité avec la région de Fatick. ay ca ñaari mbër yaa nga ca. Lang Baar ak ki nga xam ne moom mooy. Mbaye Diop qui nous vient de Palmarin Palmarin nekk dëkk boo xamante ne yàgg na am ay champion yàgg na am ay ndaanaan su ma Palmarin su ma dem si Fodé Sarr su ma nee Palmarin sama xel dem si Youssou Ndour fàq na su ma nee Palmarin su dem ci ki nga xamante ne nii moom mooy Ambroise Sarr Langbar daw na jël tànk ba mu bañ jël na tànk ba kor na loxo ba ña nga ci saako Langbar eh, da koo bëgg a génne ah oui muy troisième génn attention lu ne xaj na fii ah jeex na kon trois avertissements c'est mort Mbaye Diop c'est un leader d'expérience ah. Mbaye Diop bu la xasee mu ne un point daf koy sax conservé. voilà kooku leer na. le jubilé de Cristiano Ronaldo. l'équipe de le de Cristiano Ronaldo. donc à égalité maintenant. ah champion du Sénégal pour la deuxième fois. pour la oh. entre Dakar et Fatick. ah la région de doomu Joal la ça c'est Mouhamadou Moustapha Sène di Sélémélé ah, un champion boo xamante ne tey aussi moom tam ses médailles yàgg na bokk ci équipe nationale bu Sénégal compétir na fu ne mais en attendant Père Tafa di nuyoo Père Tafa ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar Bokar maa ngi lay delloo nuyoo gis nga jotuma nuyoo sax damaa toog rek sama dem tàng ma commencé reporté nag dëgg kat mënut a muñu dënd waaw Sélémélé ngi noonu de ah moom moo nekkoon daaw aussi porte drapeau chef de l'État champion du Sénégal moo Aji Pala nuyu nañ la. et eh, nuyu suñu jigéen bi toog di jéggalu tamit ci conversation bi léegi du sa conversation waaye daje daje rek la ah. mm. yow moom dañoo gis ngay góorgóorlu baax a baax ci euh, sa produit nga yow di jàppale làmb kon foo dugg dañ la war a xajal. sama doom bàyyi nga. ah Guèye doom bàyyi bàyyi naa la ak micro bi. Catalina ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziare. leen di fay waa Lutte TV. Mm-hmm. am mbégte fekk leen fii ci Mbour. ci journée drapeau chef de l' ñu am fierté bokk ci sponsor yi. ndaxte defe naa ne président de la république xaw ma ku ñu war a sponsoriser waaye société yëpp war nañ sponsoriser le président de la république surtout drapeau. yow moom da nga yàgg a sponsoriser lamb tey mën nañ ne tey yow yaay seul jigéen buy yëngu si wàllu marketing yore produit boo xamante ni tey da fi bàyyi yeneen activité yëpp ba fi lépp ñëw ciblé lamb ne lamb ngay jàppale te loolu vraiment c'est à magnifier kon yow war nañ la jàppale war nañ la yaatal mais aussi dafa am bés la tabaski fële ca dafa tëgg lamb foofu noonu tànn la la fa hmm. koy defaat incha allah hmm. la comme li nga wax rek comme tout le temps suñu ay produits askan wi ñoo koy jënd hmm. kon war na bu askan wi wootee ñu jóg jàpp ci tout le temps moom laay wax nee naa ne képp koo xamante ne amee nga société ci réew mi war nga su làmb wootee nga jóg taxawu leen ndaxte jeunesse bee fa nekk te ñoom ñooy jënd sa ay produits ku la amal njëriñ nag da nga ko war a amal njariñ kon na askan wi wépp di jàppale ñi nga xam ne ñu ngi ñëw ci làmb làmb ji di jàppale jeunesse bi pour ñu développer egg ci kaw. ndax làmb suñu sport la. Mm. ñu gisaat aussi nga accompagné waat aussi le drapeau du chef de l'État aussi côté c'est normal parce que parce que CNG ku ne xam na ne ñoom ñooy euh, gérer lutte donc su tàllalee loxo société yi. Mm. société yi dañ ko war a wuyu. Mm-hmm. parce que tamit mu ngi jàppale jeunesse bi. Mm-hmm. ku ne xam na ne Sénégal booy dox la matin jaar ci géej gi wala fenn xale yi ni ñuy entraîner rek sa yaram day daw donc na. société yëpp def comme ni waa SIAD def ak waa Arimix jóg taxawu jeunesse bi ndaxte taxawu jeunesse bi mooy taxawu Sénégal. am na solo eh, maa ngi lay wax ni la kii jigéen la joo xamante ni état daf ko war a jàppale ci li muy liggéey gis nga làmb ji benn sponsor rek lañ fi gis muy moom mi. E fu làmb toll mi ngi fa ànd ak promoteurs yi di leen gunge di ci liggéey. du ci tay te du ci sonn te làmb ku ne xam na ni boo koy def te amoo sponsor bu yàggee da ngay dem toogi kon nag Catalina mi yàlla moo ko indil famille làmb ñëpp ñoo ko war a jàppale ñëpp ñoo ko war a encadré ndax fi mu teg tànkam foofu la. ayca am na solo ñoo ngi koy jaajëfal combat baa ngi noonu muy nit ku baax moom Catalina di ko ñaanal jàmm ayca diggante ki nga xamante ne ni moom mooy. Seyni Bargny. 86 kilo région de Dakar waaw. c'est le troisième combat. Troisième combat. C'est le troisième combat. Dakar Fatick. Dakar, Dakar, Dakar à droite, ceinture rouge, Fatick à gauche, ceinture euh, favori Dakar, parce que l'autre c'est euh, c'est Seni Sembe non. champion d'Afrique. favori de sa catégorie. arbitre sifflé na diggante Seni Sembe ñu naan ko Seni Bargny. une finale ça gagne. ñaari mbër yaa nga ca. teel nañoo jàppante. Seni Boucar mel ni ñaar ñi war nañ xanaa daje nañ ba tàyyi xanaa ñaar ñaari mbër yi xamante nañu bu baax a baax a ñaata ñaata la seen i barñi 1 1 ah kon metti na oh, oh, c'est le oh, troisième combat c'est le troisième combat seeni faxat ko de la finale entre Dakar et Fatick ici au stade Caroline Faye de Mbour moom moo dëkk fatik la finale il nous vient de Sob Niakhar bien sûr nekk champion nekk ndaanaan bu baax moom la ki nga xamante ne moo di Seny Sembène ñu gën ko xam si Seny Bargny allez les enfants défoncez-vous waay. Mansour pas vous crisper pour une finale ay ca ñaari mbër yaa nga ca. Mansour ak Séni ñoom ñaar nag du mën a yomb. Séni ngemboolu ñuul li. Séni ñoom ñaar ñëpp ay ngemboolu ñuul la yor. waaw mais Séni moo féete ndeyjoor. Mansour moo féete càmmoñ. am na ci mbër yi perte seen final parce que final day ñëw ñu yendu ko. waaw di di ay sécurité. waaw mooy mooy mooy mooy dal xale bi njëkk bëre léegi premier combat am. Mm. loolu moom moo ko dal mooy xaleelu dakaar bi. dëgg la dafa téye boppam ba adversaire bi rek moom mooy liggéey di dem ci kawam. Mansour Tine. waaw ak seen i bari ñu combat bu métti la nag du mën a yomb. mënul yomb parce que vraiment pression day am. pression day am. li ci neex mooy kuñ ci daan loo wax parce que chance égale la ndax euh, par catégorie de poids. stress aussi day am. ay ca ñaari mbër yaa nga ca. combat ah. très physique très rude. benn avertissement pour la région de Dakar. non pour région de en avance kon. région de région de Fatick lañu avertir. Fatick lañu avertir. Hmm. donc avantage pour euh, la région de Dakar. Hmm. effectivement avantage pour la région de Dakar. Mansour Tine eh ah na ko jël na ko jël na ko mu bañ. ñaari appui ñaari appui ba tey la Mansour Tine mën na ci nekk ak ki nga xam te na ko mu bañ tag na ci ginnaaw ca saako yi arbitre lu mu wax ah, kon boog deuxième euh, arbitre lu bi de oui yëkkati ah, de ah, yëkkati na rouge de la ko wanaat Fatick mbaa du contesté gën ci na suñuy bët victoire pour la région de Dakar. Fatick mbaa du contesté. mais situation bu mel noonu diggante kuy def bu sol ak ak ak def jol-jol. waaw trop appui yomb na fa nag. dafa yomb. dafa yomb trop wax dëgg yàlla. waaw ku ci ku ci ku ci gën a a ngay da ngay bàyyi ki nga xamante ne moo def jol-jol. moo def action bi waaw moo ko def. kii day yóbbu adversaire muy rëpp koy muy rëpp finalement dafay am trois appui. day am trois appui. dëgg la moo tax ñu ñëwaat tey fii si plateau bi. Si la décision de l'arbitre est confirmée, ça veut dire que ce mais, pour Fatick. Mais on va avoir euh, une équipe hein, de, de, boo xamante ni am naa yaakaar ne dina déposer recours moo tax ñu xaarandi ba xam. xam nga man dama jàppoon ni. les images sont là. vous revoyez les man dama jàpp léegi tànk ba mu jël ko yokk ko. vous revoyez les images au ñu ànd ñoom ñaar dem ba léegi ba léegi trois appuis amagu fi ci kenn. ba léegi ñu ci deux appuis ba léegi deux appuis ba léegi deux appuis na. Séné koy fii ba léegi deux appuis la ah. deux appuis la. deux appuis la monsieur appuis la dara amul deux appuis la non yëkkati na drapeau la parce que yëkkati na drapeau bu yàgg deux appuis la gis nga deux appuis la c'est deux appuis. du victoire. du si ki yëkkati drapeau bi. waaw dafa signalé dafa signalé dafa signalé yëkkati bu yëkkatee victoire la su fekkoon dafa yëngal nii drapeau bi day signalé ne dafa génn ah, wala mu signalé ne mu arrêté combat bi mais boo yëkkatee da joxe victoire kon foofu noonu ah, erreur erreur ah, alors que moo fi am attends ñu moo foofu noonu Boubacar. non attention ah ah, ah ah ah ah ah. doy na waar de. Ah, om bi est-ce que est-ce que om bi. ñu xool avancé ko tuuti indi ma am gauche ba xam. om bi. om gauche Boubacar c'est litigieux. om bi. ah attention. ah attention c'est litigieux. ah am na trois appuis quand même ah. ah trois appuis laa gis naa man. xam nga nag Pala Diop lu mu gis. ah man li ma gis jege na trois appuis de. ah en tout cas image ñu ko wan waaye nag image nag. c'est quand même litigieux. souvent. mën na am tànk bi tegu na wala tegul mais en tout cas li xew fii moom plus que image yi ñu ko woon dafa ne kon la région de Dakar moo gagné à moins que ñuy def recours ah. ñu dem ci catégorie 100 kilos bokk. forcément yu et en égaliser quand euh, pour ñu. mu mun nekk mu ngi dem suspense ah. waaw xam nga man naka jekk dama wax ni bu Sénégal euh, bu bu bu Dakar day jël euh, drapeau bi. Mm. mi ngi koy jëlee ci ñetti